assalamu aleykum mbokka yitede yi ñooy déglu maa ngi leen di gërëm di leen nuyu di leen santa ñu dooree jotaay bu tedd bu màgga bi ci turi yàlla bu tedd bu màgga bi moo di bismillahi rahmani rahim ñu julli ci kaw yónneentaam bu tedd bu màgga bi di suñ sàng mohammadu rasul salallahu alayhi wasallam ma di seen mbokka yi sa bokar si nañ ko baaxoo di defee ci jamono ji rek lu ci jàmpati rek ñu indi ko jàngat ko lañ leen indil tey nag mooy ñu bari ñu ngi xool daldi gis ne li Yaya Jammeh di nekk di def dafa safaanoo ak li nga xam ne moo war a am mu di jaar ci sart bokk ci itam ñu bari di wax naan waa moom lu tax joxewul lengi te itam mu doon nit koo xam ne xam nga ku jaxase lii di kañaan ak rëy kooku jëflanteeg moom dana jaf moo taxitam itam Yaya Jammeh na ko nit ñi xamee ñu de ñu bari am na lu des luñ xamut xam nga lu sax ci nit ñaar fukki at ñaar waaw boo dégg yaa ko wax déedéet boo dégg yaa ko wax ñu miinal la ko saa soo yeewoo ci suba ñu lay teggal Mali saajo soo ngalawalee sax ñu ne liskoloj la loolu su saxee si dëkk pour génnee ko ci moom naxante lu ci gën a bari danañ ko jéem waaye dafa mujjee looloo tax nag yaa jàmme wëlbatiku la may fexe mooy lii xam nga dañu wéeru ci sarta réew mi ne loolu moo war a mën a déggal ne aadama Barrow mooy njiiti Gambia mu ne kon nag balaa fukkeeli fa ak juróom-ñett ci weeri janwaari mu fexe mu daw dem ñëw yóbbu ko ci yenn àttekat yoo xam ne teguwuñ fenn mu ne gis nga nag man itam faraa jaar waaye loola yépp ñi ko wër ñooy gën a dugal yaa jàmme ci tuuxi duna dugal na ba noppi sax xam nga maa ngi njëkkee di leen rëy ak kaña xam nga rëy moom yaa jame xam na ne mënoon nay toog bam ne comme siit na difiit ne nangu na daan nañ ko mënoon nay wëlbateku itam nit ñi sax am nañu seen xol dooroon di tooy dem ne teg def yépp mu jaar yoon joxe kayit joxe lenge yi mu ne leen maango ku ne danga gëm yàlla kay loolu kay def soo moom mu ne daf doon waat at yépp li tax may def li may def nii yàlla la yàlla la yàlla la koo xam ne yàlla rek a tax yàlla atte ne am na ku la daan ci kart nga wëlbateku nga ne nangu nga nga wëlbatekuwaat nga ne nanguwu la waaw li ma daan wax ci at yi rek gomi yàlla wala wax mbiri yàlla ci làmmeñi naa fekk dafay neex waaye dunda ko ci xol dafay jafe loolu nekk na dégg nag yaa jàmme su defee bala ettin februari ngen balnoɓe ettin januari so defe mone dafay jeema jewna jaxase xeli nit ni xam nane dufa to ga waaye reyam moo tax su ko defee nuuna ñe ne a ah, tenson am na moom na ci luwa la jaaroon kat waaye li nga xam ne moom la xamut mooy yàllaa ko ëppa pexe xam nga góor gi waxoon na ko am na góor gi ko waxoon mu ne seetaan ak soppi yàlla mën na ko def suy seetaan nga far fu fu ñooy seetaanee su fekkee ne daal am na lu fa métti rek nga xaddi waaye bés bu mu la fekkee ci soppi keroog nga bég yal na la yàlla fekk nag ya fekk ñu ñun ñëpp ci lu ko neex du lu ñu neex de li ko neex moom. léegi nag loolu moo xew Yaya Jammeh loolu mooy problème te itam moom lam fàtte mooy bam ne waaw. attekaay ba nekk ca ECOWAS moo ëpp doole bu nekk ci bir gambia ci mom kiisam mom ya jàmme ci jamono ji ak itam mbootaay karange ba nekk United Nations Security Council mo ëpp fépp doole kon nak Gambia ni li ma leen di yëgal mus nañ leen koy fay wax sànnikati karta yi ma ne te président elect Adama Barrow waxoon na ko ci jamono élection bi muy waxi dëgg sànni karta moo len war waaye su bañee wàcca ca gannaaw sànnim karta loolu du seen liggéey yéen toog leen di seetaan bu soobee yàlla Yaya Jammeh soo gisee ECOWAS jóg Gambia tax su doon di moom rek Adama Barrow rek bés bu nekk ngeen dégg ay borekat ci stade ba lu toll si fanweeri junne yi nit ñëw fekkee ko waaye du tax ECOWAS jóg de waaye réew a tax member state kon loolu yëpp soo ko dajalee li nit ñi war a xam ñu bari ñu ngeen naan waaye yaayaa moom demul ba léegi jarut yàkkamti ne fii àdduna bi yàgg nañ fay gis ay nit ñuy toog déggoon nañ fi Saddam Hussein bi xeexkat yi dem Iraq mu ne it will be the mother of all wars waaye fu ca mujjee déggoon nañ fi Gaddafi mooy ooye nit ñi ay raat xam nga rëy su la alkaande dabee ba nga yëg sa boppa ci la la rëy di wan nag tey laa lay alak ne nit ñi dafa gisul sax lu tax nit war a ñàkk a na nit ñi bég waxoon naa leen ko ku bugg a def sa victory party def ko déedéet bu kenn yox di dellu gannaaw de waxoon naa fi affaire yi ambassado yi gis ngeen lii xew te dégg ngeen président Alassane Ouattara lam wax Radio France International mu ne na wàcc te ñoom dinañ dem dugg a Gambia wàcca foofu fekkee inauguration yi barab mu ne nag am na leen luñ denca loo xam ne loolu du waxi rajo wax na dégg dégg ngeen suñ mbokk mi suñ mag kii di Seydi Macky Sall His Excellency President of the Republic of Senegal moom it lu mu wax tey tey tey yàggut mu ne yaa jàmme du mun a xeex àdduna bi yëpp na wàcca na dem te ECOWAS duñ dellu gannaaw ci seen décision xam nga yaa jàmme loolu la yàgga miin di naan Gambien yi dégg ngeen rali bam njëkkoon a am Sukuta mu ne gis ngeen Rwanda gis ngeen Sierra yoon jamono jooju mu ngi prépare boppam mu dem élection 96 ni ne ne ah kon nañ ko sànnil loolu la saxal ci xolam su ma xuppee Gambien yi ci wàlli dee rek waaye yàlla moo binda Gambien yi yàlla moom réewam yaayaa jàmme lam mébét lam éene ak la muy jaxase si xeetam ak ñépp ñenn ñi mu leen di gomloo ne man di ngay suñ fi faloo dinañ leen def li yooyu waxi caaxaan la loolu ba ma ko waxee du tey yàgg na loolu du xibaar bu ees su gomlooyee joolaa dafa bugg a joolaa na ko joolaay laaj Zeynab suma jàmme ban xeet la rek mu jeex takk ñam musoon na takka yépp sax nañ ko laaj jabaram bu njëkk bi lan la tuuti faal jàmme nañ ko laaj jabar bam takkoon moo di alima sàlla lan la nañ ko laaj kañ ko musoon a wax ne takk na ko amina kóol lan la loolu rek doy na tontu joolaay dinañ xam ndax yaayaa moo leen bañ ndax mandinkaa leen bañ kon nag bu booba na waa bañu li tontu yaayaa jame ndem si yàlla kama baaj foofa ci boppam bañul la tekke jamono jiñ toll nii sax yaa jàmme ci boppam benn si ambassadeur mi bu di démboo baaj xanaa kooku du wax ne dañ ko xetal Gambia nag ndax kooku nag dégg na joolaa sax bu baax nañ laaj yaaya jàmme ñoom joolaay ku koy samba sañam ba mu dee ñu ne dañ koy delloo Gambia mu xañ ko ñu suul ko ci réewam ndax ku koy bañ xeet la loolu mooy li leen indiloon tey kon Yaya Jammeh mënut a jàll lii ku cay jël lii di ko jéppandekoo nag da xaw a ragal bul sax yox-yoxi Yaya Jammeh la ma leen yàgg a wax la dina wàcce mu dem su fekkee bu gën a jàmm ci moom su bëggul jàmm ci moom la ma ko yàgg a wax la dinañ ko téye dinañ ko takka dinañ ko tëj yàlla na yàlla defal jàmm jëre ngeen jëf